jërë ngeen jëf euh, mbokki Baol Info TV mbokki maa ngi leen di nuyu di leen di ziar mbokki nag xam ngeen ne dafa am lu xew li xew mooy président Macky Sall fan yi yëpp ma ngi recevoir ay maire ci pale bi ay maire yoo xam ne ci opposition bi lañ bokk xam naa président Macky Sall moom euh, jamono ji gagné élection législative yi bakkanam la si tekk Euh, tey nag ci alxames ji dafa am benn information boo xam ne mooy jaabaa jonge ci réseaux sociaux yi information bi mooy euh, maire bu Yoff di Seydina Issa Laye Samb bokk ci coalition Yewwi Askan Wi bokk ci taxaw Sénégal xalifa Sall président Macky Sall daf ko recevoir palais information boobu mooy jaabaa jonge ci internet bi ci réseaux sociaux yi ak yenn site internet yoo xam ne euh, bind nañ ko mbir bi nag bi mu ne tëll am na ñu bari am na ñu mbetteel ndax euh, dañu jàppoon ne daal président Macky Sall nag mën naa recevoir ay maire yu bari maanaam ñu bari mën nañoo transhumé daal ba mu des Seydina Issa Laye Samb ñu bari loolu moo tax ñu am mbetteel ci mbir mi euh, waaye nag Bawol Info TV moo leen di jox en exclusivité mbir mi ni mu demee euh, Seydina Issa Laye Samb président Macky Sall recevoir ko xam naa lii ma leen di wax nag. Euh, dina am ñu naan c'est pas vrai mais Bawal Info TV moo leen di jox en exclusivité xibaar yoo xam ne yu wér la te wóor yoo xam ne bu ko Seydina Issa Laye Samb déggee dina xam ne kii lii mu wax dëgg la Seydina Issa Laye Samb président Macky Sall recevoir ko waaye dem na pale Seydina Issa Laye Samb mbir mi nag ni mu demee mooy xam ngeen ci. Euh, littoral bi maanaam si jàmmalaay bi foofu nga xam ne fi la ñu bari di entraîner ak ñu bari di fa euh, di fa féexlu foofu ci littoral bi dafa am benn comité boo xam ne ñoom ñooy saytu littoral bi comité boobu ñoom dañoo yàgg euh, bëgg ku leen ko aménageel comme porte millionnaire ni mu mel xam ne ñoom temps wu Ablaye Wade sax yàgg nañoo joytu lu mel noonu waaye nag dafa am leneen lu si dolleeku li si dolleeku mooy fan yi ci jàmmalaay ci espace boobu ci littoral bi dafa am ñu fa commencé tabax commencé fay def ay briques comité bi euh, dem seeti maire Yoff di Seydina Issa Laye Samb na ko ñun kat dafa am ñuy tabax ci ci littoral bi si jàmmalaay bi fi xale yi di entraîner ak fi ñuy euh, fi ñuy féexloo euh, léegi comité bi dañoo dem seeti meeru Yoff Seydina Issa Laye na ko kan ñun ci jàmmalaay bi fi xale yi di entraîner mag ñi di fi féexlu dafa am ñu fa commencé tabax te ñun dañoo bëgg ku ñu ko aménagel Seydina Issa Laye Samb na leen mbir mi de pour mu gaaw ak mu lijjantiku euh, état moo ci man dara état nag Seydina ne leen état nag du du du Macky Sall en tant que njiitul APR Seydina Issa Laye Samb jël téléphone am woo ministre Mor Ngom bi wooy ministre Mor Ngom jàmm santeeg moom expliquer ko cas bi na ko dafa am komité bu nekk fii euh, comité boo xam ne ci yoof dañu yàgg xeex pour littoral bi ñoom tey ñëw ñii dañu ñëw wax ma seen soxla te am na loo xam ne euh, état moo ko man Mor Ngom na ko pour mu tàbbi ci noppul Macky Sall de li ci gën a gaaw mooy Mahmoud Saleh léegi Mor Ngom na ko léegi bàyyil ma woo Mahmoud Saleh organiser benn audience Mor Ngom woo Mahmoud Saleh organiser ab audience ak moom Seydina Issa Laye Samb ànd ak waa comité bi ñëw ci pale bi gisanteeg Mor Ngom ak Mahmoud sale ñi ñëwoon pale gisanteeg Mor Ngom ak Mahmoud sale ku ñuy wax Mame Binta Diop conseillère la ci Euh, commune bu Yoff moo nekk concert bi gën a nekk xale ci commune bu Yoff ak ku ñuy wax Samba Dia doyen de doyen Samba Dia ak ku ñuy wax Ousmane Fall nekk agent ci commune bu Yoff ak madame Diouf njare madame Diouf Ndiare bokk na si ñi yàgg xeex pour euh, littoral bi même temps wu Ablaye Wade euh, arrêté woon nañ ko ci combat yi mu doon mënee ngir ñu sàmm littoral bi ci ci jàmm ci jàmmalaay d'après information yi nga xam ne jot nañu ko ñii ma leen tuddal nii ñoo bokkoon ci délégation bi Euh, Mame Binta Diop ku ñu wax Samba ja ku ñu wax Ousmane Fall ak madame Diouf njare ñii même si temps Ablaye Wade madame Diouf Ndiare mi arrêté woon nañ ko comme ni mu leen ko euh, comme ni mu leen ko waxee léegi ñoom seen problème instant bi mooy ñi bëgg a tabax foofu tàmbali faa mool ba pare loolu lañ bëgg mu dakk beneen bi ñu bëgg ñu aménager leen ko comme ni ñu def li nga xam ne tey moom mooy euh, porte millionnaire mbir mi nii la demee waaye ki nga xam ne mooy Seydina Issa Laye Samb ak comité bi mu àndaloon. ñoo àndoon gisi Mahmoud Saleh ci présidence Mor waaye gisante ak président Macky Sall léegi nag yéen sunu mbokk internautes yi da ngeen wax ne nan la mën a duggee pale te gisante wut ak Mahmoud Saleh euh, ngeen baal ak président Macky Sall euh, en tout cas li am te mu wóor muy lu leer naññi euh, mooy Seydina Issa Laye Sall ànd Issa Laye Samb ànd naa comité bi dugg nañ pale wax nañ ak Mahmoud Saleh Mor ak ñii ko fekk comité bi waaye président Macky Sall gisantewut ak Seydina Issa Laye Samb lii moom mooy information boo xam ne mën nañ leen ko wax ci mbir mi ñenn ñi nag danañu wax ne nan la mën a duggee palais ba génn te gisante wut ak président Macky Sall en tout cas loolu ay interrogation la yoo xam ne kenn ku nekk na ci sañ-sañ aussi c'est normal nit xalaatee noonu li am daal te Bawol Info mën leen koo wax mooy Seydina Issa Laye Samb moom ak comité bi dugg nañ pale gisante nañ ak Mor ak ki nga xam ne mooy Mahmoud Saleh ndax Mor Ngom ko pour mun a toog ci noppal Macky Sall Mahmoud Saleh moo ci moo ci gën a gaaw mbir mi foofu la yamagul jërë ngeen jëf